Euh, comme ay xale nga fi Sénégal xale yi bëgg nañ fecc bi mhm. xam nga léegi aussi ñu lay laaj tey xale yi ban conseil ngeen mu la jox pour ci wàllu solin bi ak ni ñu feccee en tant que porte de voix lan ngay wax xale yi ah xale yi li ma leen di wax mooy euh, ñu gën ko wormaal ñu gën ko rafetal mhm. te nit ki doo tëll rek sa waa kër ak sa waa koñ rek ne la mën nga bu jàpp ne mën nga dangay ngay jàngi ci waat ci maître chorégraphie jàng ci entreprise yi nga xam ne ne tey jii lu mel ni Blaise Senghor lu mel ni bale yi fi nekk nii tey jii foofa dem di nga fa fekk ay maître chorégraphe mm-hmm. ñu tegaat la ci yoon xamal la lan mooy liggéey bi euh, côté colin bi mm-hmm. am na sol yoo xam ne day dem ci spectacle am na sol yoo xam ne ne ci biir néeg la jekk mm-hmm. jekkul ci ay ba jamonoy baax da ngay gis bàyyi fatt la nit ñi di sol wala ñu sol ay cuissard waaw mais nag bu ci bëggee jël ay euh, baayu transparent yoo xam ne boo koy xool di gis sa yaram yëpp. Mhm. di ko feccee kon mbir yi euh, am na lu ci rax loo xam ne loo gis am na professionnel. Mhm. waaye loo gis man jàpp naa ne am na amateur. Mhm. donc ci métier bu nekk nag kon ñu defaraat euh, toogin wi. defaraat comportement yi. mais mu gisoon nga nekk fondatrice Amazone. ñu jékki-jékki dégg gisatuñu Amazone daal comme ni mu meloon ay jamono defoon flam ku ne ñu koy dégg. lu waral stand by boobu. waa Amazon Junior yi ñoom ñoo fi nekk léegi ñoom ñooy diriger ñoom Fane Doy xale yaa ngi fii ñoom ñooy diriger macha allah ñoom Cheikh Na Fall donc comme Amazon Junior yi dañ fi juddu dañu nekk ci terrain bi di jouer di nekk ci clip yi et donc ñun ñu ngi ci yeneen nekk soda ci conseil d' administration bi di leen défendre foofu en même temps nekk ci sama politique ak sama business temps bi moo mayeetul lu bari. ak en même temps nekk animatrice fële ca sa TV. di def émission yu mag yooyu tudd Oumou Show. Mhm. Ah, yaakaar naa comme ni nga ko waxee moom nee na ah, temps bi yëpp da ko def ah, animatrice affaire yooyu noonu mais li ñu ñëwaat di la laajaat mooy que ni Oumou est-ce nekkul dañoo dem ba benn jamono xam nga comme ni ko gars yi di waxee rek day na jëm ak xale yi ñëw xam nga jël seen relève bi est-ce que noonu réellement moo am bu gisatuñ leen ci yenn seen yi. xam nga ñun dañu dugg ci aar mhm. teel maanaam dañ cee teel a am tur euh, jamono yi ngay dégg Oumou Sow Oumou Sow ba léegi dangay defe ne Oumou Sow sax mag la mm-hmm. mais ci âge duñu mag ci âge xale yu ndaw lañ boo xoolee suñu kàddaante xam na ne bi ñu juddoo yàggul kon tey mën nañoo jàpp ne kon tey boo boo mooy boo sumee koo futeeku parce que jàkkaaroog xale yi doon may dara non dépassé naa foofu ndax mm-hmm. ku dem ba jur doom mm-hmm. may ko mu yi yaakaar naa ne xale yi moom lu dul ñaanal leen rek ndax nguur te bool kenn du ko ñedd xale yooyu da nga leen di ñaanal pousser leen. Mm-hmm. ndax ku yor association des danseurs et chorégraphes mbalax bu Sénégal. Mm-hmm. Pape Moussa Sonko nekk ci président bi man ma nekk secretaire général. Mm-hmm. yaakaar naa ne léegi ñoom la ñu lalal tapis rouge bi pour ñu mën a dem devant la scène. Euh, kon euh, bu bu ñu dégloo ko mu nañoo jàpp ne ba léegi noonu ak groupe bi mi ngi dox ba léegi. waaw Amazon Junior yi ñu ngi doxal. ñoom ñu ngi tourné clip yi ñu ngi dem ci spectacle ñoom ñoo may accompagner sama ginnaaw di ma feccal macha allah. dëgg la euh, comme ni nga ko waxee ñoom lay àndal ñu koy feccal euh, mm. macha allah. Euh, loolu dëgg la comme ni mu ko waxee nii ñu mm. ñu ñu defaraat toogi ni ak mm. comportement yi. léegi ñu gis ni milieu boobu noonu mi milieu art en tant que feccikat aussi nekk ay jigéen yow bañ ci tollee yow say famille na la ko daan dundee pour tey nga mun ko wax ah, ah, xale yi ñuy seetaan pour ñu mën a am leçon quoi yow sa jamono nan nga daan dundee boo waree pare pour dem tourner. Mm-hmm. Mm-hmm. waaye li may dundee mooy euh, ànd ak sama euh, leader ndax ku nekk amoon nga ay njiit. Mm-hmm. donc say leader bu ñu waree dem tournée wala dem benn spectacle. donc dañ lay xamal ne déguisement bii la sol mais lii lii lay àndal. Mm-hmm. nga ànd ak ñoom dem. joué ji soo demee joué ji nag ba pare. Mm-hmm. amal fulaay ñibbi si sa kër tëdd. waaw bañ a taxawaalu et nit fu muy dem na nekk fu ñu koy woo mhm. waaw ñun daal suñu comportement loolu la woon mhm. fu ñuy dem fula ak fayda moo nu yóbbu mhm. dem ci fula ñëw ci jom loolu la ñuy def mu suñu dem tourné daw mu suñu ànd suñu leader mu xeeb ñu mu suñu ñàkk fayda fenn ci benn scène. Mhm. fu ñu dem ci personnalité la ñuy demee ci ci personnalité la ñuy ñibbisee. amul dara loo xam ne nit mun na ko taxal ci suñu der. Mhm. wax ko loo xam ne ne wóor na ko te ci bàmmeelam la taxaw. Mhm. que dund nañ ko ci tournée yeeg ci voyage. kon sant yàlla waru jaam. xale yi nag li ma leen di digal mooy bu ñu dugg ci aar ngir buzz. nañu dugg ci aar ngir am amuur bi ngir euh, jàngiwaat pour gën a mën a nekk professionnel. ndax loo doonu taalibeem doo nekk sëriñ rek nekk ci TikTok wala nekk ci affaire génn. Mhm. defe na yow am nga bës te jàngiwoo. Mhm. da ngaa ñëw rek bëgg a tëll noonu. Mhm. waaw tëll nag dëgg la bidéo yàlla moo koy def. mais da ngay jàngiwaat. defaat formation gën a liggéey accord c'est comme ni mu ko waxee defaat formation gën a euh, jàngaat liggéey bi. Euh, aussi tamit euh, tey lu lay laajaat mooy que ni est ce nañoo wax umu am na loo xam ne tey def na ko ci ci aar bi ba ba ba mu nekkoon tey du ko def. Ah, franchement loolu moom fàttalikuwuma ko waaw lu may rëccu ci aar. waaw nga toog jékki-jékki ne ah man mii kat lii rëccu naa ko bu doon tey jii duma ko def. non gisaguma ko yàlla macha allah waaw man moom gisuma ko xëy na keneen. Mhm. Euh, xëy na keneen gis loolu mais man de. Mhm. ci sama aar ci sama parcours. Mhm. ci fi ma jaar ba tollu nii. ah dëgg-dëgg man gisaguma loo xam ne def naa ko ci aar rëccu ko. d' accord mhm. comme ni nga ko waxee kon yaakaar naa ni lii nii ah, ah, conseil ci xale yi. Mhm. waaw parce que moom fecc na xam nga heure bi ba toll fii nii. Mhm. ba yor ay ñoo xam ne mu ngi leen di jàngal mu toog na man ah, yaakaar moom fu ma toogee war a gis ni kat man def naa benn erreur bii nii kon yaakaar naa loolu noonu xale yëpp war nañ cee mën a jàng exemple. ok fi ñuy duggaat mooy que ni à part fecc bi umu ci lan ngay yëngu. Euh, umu mu ngi ci business bi fi nga ma fekk nii Amazon. boutique euh, maa ngi ci lépp loo xam ne ne taasu kanam la lee de corps ak jigéen ñi am taasu loxo yeeg cere cere yi xam nga xale léegi diw bu nekk la ñuy laal lu ñu gis ci internet bi xamuñu nuñ ko mélangé ñun nag duñu mélange mm-hmm. ay importé laay jëlee ci ay bitim réew mm-hmm. su ma ko jëlee bitim réew ñëw jël logo bi def ci Amazon lait de corps Amazon entreprise la mm-hmm. waaw comme logo bi nga gis gis nga Amazon lait de corps waaw man ci lii laay yëngu teint noir teint clair yi am tâche yeeg yooyu yëpp man eh, ci lii laay yëngu. Mhm. bu ma paree ci loolu maa ngi def couture. Eh, damay mhm. def ay tenue di ko yóbbu extérieur di toog fi GP di ma ko yóbbul di def samay création. kon daal mënuñoo jàpp na daal Oumou mhm. Sow femme d'affaires la. femme d'affaires la waaw macha allah. <laughs> Oumou Sow day def politique maa ngi Medina di eh, jàppale ci Ahmed Tidiane Ba. Mm-hmm. directeur général CDC mm-hmm. ma koy nuyu bu baax. Mm-hmm. Euh, di ko ñaanal jàmm. Euh, en même temps maa ngi def euh, li nga xam ne mooy animatrice. animatrice nag tëbuma rek nekk ca. dama dem RTS dañ fa def émission takkusaan. placard des stars def fa neuf mois. de formation. ma pare dem Dakar TV def fa un an. Maïmouna Ndour Faye sama PCA ma koy nuyu de passage. 7TV mhm. léegi ma am fa un an. Mhm. mais pourquoi Oumou Sow feeling bu nekk ci moom bi wax di def ni loolu. Euh, hmm. nan la dikkee ci yow Oumou Sow. ah Pape lan la wax. solo hmm. du doole. Mhm. waaye <laughs> jigéen day am cas. jigéen day am cas dama rek macha allah. waaw hmm, cas rek. mënoo jàpp ni cas la daal. waaw <laughs> cas la rek waaw waaw <laughs> dafa ay bagages. ak i bagages wax nga dëgg comme. Euh, loolu bu ñu déggee sànq seen biir dañoo euh, dañoo dégg nga. jigéenu Sénégal yëpp daal pour le hmm. moment moom. man hmm. la ñu wóolu ci lépp loo xam ne daal affaire yaram la. moo xam lee de corps. moo xam macha allah euh, yàlla jëm kanam. comme di sa biir wax. sànq nga ni. politicien la. damay politique waaw mais Oumy loolu dafa yàgg mais politique du tey sama papa moo daan politique al Ablaye Wade. Mm-hmm. en même temps di ko jàppale di ko jox ay matériel 88 ma nekk xale bu ndaw amoon 8 ans. kon loolu moo la poussé tey nga ne ah, man nu ma nekk euh, nu ma def nekk politicien daal. non non amour la. waaw ah, bëgg naa xeexal sama réew. Mm-hmm. bëgg naa xeexal ñi nga xam ne ne tey ñoo nekk ci musique bi nekk ci aar bi. Mm-hmm. bëgg naa leen xeexal. bëgg naa man tamit ñu joxaat jigéen cëram. te xam ne fu góor toog jigéen mën na faa toog mm-hmm. waaw loolu moo ma dugal ci politique amour laa ci am. Mm-hmm. kon euh, dogguma la comme nu ma ko waxee sàng sama biir wax nee naa Oumou euh, dafa nekk koo xam ne mm-hmm. euh, Sénégal dañ koy déglu Sénégal dañ koy bàyyi xel. Mm-hmm. te aussi mu ne ci dafa nekk ci ci politique. kon dañ kon xam naa duñu jéem ma def lu waxtaan moom ci politique. Oumou dañoo gis fan yi ci ginnaaw suñu dëkk bi di toj. dëkk bi di tàkk. amul te ñu ñëpp loo xam ne tey fii ci Sénégal mooy ci affaire Ousmane Sonko. ak Adji Sarr bi nga déggee loolu yow nan la la def. ah ma dara dama jàpp ne euh, am na loo xam ne ne bu amee man duma si duma si duma si wax parce que justice bu nekkee di def liggéeyam mm-hmm. ala kulli mm-hmm. euh, yow da ngay bàyyi loolu rek am nañu ko moom mm-hmm. man li ma moom nag mooy sama politique bi may def Médina waaw d'accord euh, yóbbu président Euh, présidentielle mu dem présidentielle ma gañal ko Medina. Euh, ak Cheikh Ahmed ba battre campagne. Mhm. ba gañe Medina. defe naa man loolu président Macky Sall. Mhm. ci li mu bëgg rek ak sama DG ci li mu bëgg Cheikh Ahmed Tidiane man ci lay dox. ok foofu moo la intéressé dëgg la mais tamit yaakaar naa boo nekkee ci politique lépp loo gis te xam ne moo war a doxal sa réew tamit. di ci mhm. wax. waaw li may wax mooy euh, na réew mi am jàmm rek. waaw ndax réew mi buñ ko taalee. foo taal fa ngay fanaan mhm. kon nag nañ bàyyi euh, yàq bi mhm. te xam ne ne loo yàq suba sa mhm. réew nga yàqal tappewaat xol yi ku nekk far fa nga far kenn bañ a yàqal kenn d'accord mais aussi tamit euh, mun naa ne exemple leer nga fii say tey jii fii ci Sénégal xaw ma nag loolu moo am wala amul mais fekkee loolu moo am ci ci kaaw Adji Sarr léegi en tant que jigéen loolu lan lay def ci yéen bu fekkee moo am nag wóoruma ba xam moo am ba am parce que comme ni nga waxee mi ngi ci ay loxo. man nag dossier bi xam nga maîtriser wu ma ko man damaa dégg rek mais comme maîtriser wu ma dossier bi donc déglooguma ko ba mu leer ci sama nopp mënuguma ci xuus. ak umb li jamono li muy tàkk yëpp nga déggoo ci benn kii. Ah, barke Mouhamad El Fadel dégg naa daal ay coow. ok d' accord mais tamit sénégalais bi la bëggee tamit jot na tey dara bu amee nga taxaw wax. li may wax mooy. yàlla jàmm yàgg Sénégal. loolu rek nga am luy wax. loolu rek laa ci wax ba dossier bi leer ma. moo umu nee na ah, loolu rek la am lu mu ci wax. Ah, mhm. na Sénégal am am jàmm. Ah, ok su ñu amee jàmm ñu gisoon nga defoon Sorano. 13 mhm. mars waaw jàpp ne sax yow yaa nekk. maanaam a leader bu bu mu mujjee def bu mujjee tëgg foofu noonu Sorano. avant Covid waaw avant bi léegi yow loolu noonu mu leer na yow yaa mujjee tëgg foofu. Mhm. après léegi loolu lan la def ci yow. sant suñu borom rek te xam ne suñu borom réservel na ma wax dëgg yàlla am na lu ma defal macha allah sante naa ko. Mm-hmm. ndax mënoon naa yëgal sama ay nit def ci peine investir ba sonn. Mm-hmm. ñu xëy rek ñu ne ma doo tëgg Covid bi. Mm-hmm. yàlla def nag ma tëgg ba pare. ci ëllëg sa lañu jël décret bi. man nag yàlla rek ak sama ñaari waaju aw tëgg yàlla lay sant. sant naa daal sant naa daal alhamdulilah. mu fees dell. ko sant comme ni nga ko waxee nga tëgg ko mu fees dell artistes yu bari ñëw. Mhm. mais um est-ce que mën xam si relation yaak Mbathio. Mhm. Euh, aussi tamit ak Ndeye Gueye. parce que yéen yéen ñëpp yéen a bokk même génération. Mhm. mun na ni yéen bokk lépp li ngeen def daal. ndeysaan waaw ñu ne laaj si relation ak ñoom. waaw Ndeye Gueye ñoo bokk association des danseurs et chorégraphes mbalax du Sénégal. mu yor ci lépp loo xam ne ne euh, euh, organisation la moom moo ko yor Ndeye mun naa ne chaque. semaine wala chaque un mois dañuy gisee parce que dañuy def ay réunion mm-hmm. moom macha allah ñuy am relation yu bien mm-hmm. euh, Macho may magam mm-hmm. maa ko yar kookiit magam laa yaayam laa franchement mu jox ma cër lool biñ koy takk mu may ma mu magale ma sénégalais yi gis nañu donc ñu dem defar ba mu baax maa ngi koy ñaanal léegi mbaax na muy xew la magale la loolu noonu la def ci yow parce que nekkul loo xam ne lu yomb la tamit ah yomb na ku la yar nga jóge seen Koungheul ñëw dal ci moom. presque bu ñu bëggee dégg dafa jóge Koungheul ñëw nga dalal ko. waaw mais c'est normal c'est normal cër bu la. Mhm. parce que bu bu ko deful woon sax euh, moom ci boppam day xam ne mi ngi ci et puis koo xam ne yéene na la ko. Mhm. depuis des années. Mhm. suñu may takk yaay sama mag suñu may takk yaay sama mag. ndeysaan cër moom ci ku la ko jox rek nga wan ko ne bés ba. waaw yàlla di ko ci dooleel. dëgg la dëgg du neex. da nekk comme rek mooy baax nag lu dugg dama koy xam.